waaw final bi euh, vraiment content naa ci trop ci jeunesse bi parce que vraiment football lañ football bu leer xeex amul xuloo amul dara amul euh, di remercier waa Nguéniène ñëpp taw ñi samay samay man xa ndaw la xam nga man samay <laughs> ñoo bokk maase ñi organiser li suñu génération la suñu suñu xarit ñoo fi nekk suñuy rakk suñuy mag ñoo fi ne kon nag euh, suñu relation mënul que relation bu boo fixe boo xam ne bu pour normal la mun nekk ñu ngi liggéey maa ngi ñoom depuis des années ñu ngi lim xewle su ma ko yëgee naa ci sama doole kon nag euh, wax dëgg yàlla relation bu baax la. waaw terrain bi yàqum courant bi moom euh, maire moo ko def maire moo ko def mais xam nga euh, munoo dafa may priorité pour maire yi doo ñëw rek ne da ngay def courant fekk am na ku soxla ndox teen ndox teen pour naan am na ko soxla garab hôpital nga bay fa garabi teen ñëw def di éclairer courant di terrain. tere boo xam ne suñu ko footballé peut être mooy fula day day donc ñun peut être li ñu euh, li maire moo def mais nag na lu dina ñëw parce que bu njëkk amu fi woon dara amuloon mur amuloon euh, grille de protection mais am na fi léegi donc kon nag yaakaar naa ne ci kanam suñu mu ñëw tuuti rek dina ñëw incha allah. waaw partenaire ñu ngi day nga partenaire moom ñun lañ ko bëgg a ngi ne ay ñu ñëw di jàppale population bi donc euh, loolu yàgg yàgg nañ ko def te dañ ko ne di ko def incha allah. waa éducation moom euh, man ku ma xam école la ma xamee ay école de formation lañ am muy hôtellerie restauration école de santé ak euh, groupe scolaire enseignement général loolu la ñuy def mooy suñu suñu liggéey loolu la ñuy def kon nag ma bat ñun bëggu nañ fii Nguéniène def fi école loolu moom suñu mëbët la ñu ngi ciy pour def école boo xam ne wax dëgg yàlla mujj ay lay nekk boo xam ne xale yi nañ mun dem jàngi foofu nga ne day commencé jardin d'enfant ba terminal waaw Nguéniène Nguéniène moom Nguéniène moom euh, euh, des na des na lu bëri ah desna, na parce que xam nga ressources au niveau de la mairie bëriwul soo demee tey y a que le marché hebdomadaire mooy joxe ay ressources à part fonds de concours ak fonds de kibi, donc yooyu ñoom ñoo fi ne yi nga xam ne ñoom ñooy tax euh, mairie en général lu bëri ci fonctionnement lay dem ci mairie bi donc kon nag li ñu mën def mooy en tant que maire uti ay partenaires partenaires moo mën a jàppale mairie mais fi mu ne soo bëggee basé wu ci ressources yi nga xam ne bëriwul marché bi ak kibi ak euh, li la état bi jox lolu euh, mënoo ci développer commune mais nak ñepp ci war japp population aussi di fay impôt wa wax naa ko ba passé final passé né woon na len ci kii bii di ñew bi di ñëw wax inshallah Alpha samba quelle soit la formule sera candidat aux élections locales de 2021 si Dieu me donne vie moi, je suis parti D'abord, d'abord, faut abord fa donc mënoo élection sans coalition élection mënoo sans coalition il y a le Benno Bokk Yakar. il y a euh, nous ne ci je quelle soit la formule maintenant en tant que militant discipliné après, en tant que militant discipliné après, lañ mooy suñu parti fa la ñuy maintenant suñu paree ñu soog ay les ut ay partenaires ñuy jàppale mais kenn nit rek mënul gagner élection ci Sénégal Nous nekk. ñu ngi terrain bi d'ailleurs euh, dinaa annoncer léegi à partir de janvier on va amener concept pour mettre en place un week-end un village actuellement. on occupe l'espace politique chaque week-end incha allah nañu benn dëkk def la ñuy wax euh, consultation citoyenne dem laaj waa dëkk ba lu ñu soxla lan mooy seen problème lan mooy seen jafe-jafe suñu paree nañu def suñu programme boo xam ne mooy suñu programme de campagne pour